am na yu tuuti yu ñuy xeeb xeebuwul de parce que nit ki xamoo ci lan ngay dee fan ngay dee kañ ngay dee ko ci lan ngay dee kañ ngay dee fan ngay dee yàlla mu ne amul benn bakkan bu xam loolu moom tabaraka wa moo ko xam kon góor-góorlul dëgëral sa tawhid wala tamutunna illa wa antum kon na sax tawhid bi na sax foo nekk loolu nag dañ koy tàmmal sa làmmiñ boo pakastaloo ne subhanallah hakaza boo déggee lu lu déggul la hawla wala quwwata illa billah neel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun neel la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala allah waaye cëy boo saxalee sa bopp ci leneen boo ko séenee leneen ngay wax kon loolu mooy tawxiid nañ ko tàmbal suñu bopp fépp fu ñu mën a tollu ndaxte mën a daje ak borom bi subhanahu wa taala fekk mu ñu mu ñu gërëm